jaamu yàlla du période jaamu yàlla du période am na ñoo xam ni foo leen gisee ñuy jaamu yàlla weeru koor a jot jaamu yàlla du période comme awalu ma yuxaasabu bihi l abdu yowma alqiyaam assalaat julli mat naa fonk mbokk yi ñu ngi ci weer woo xam ni yàlla nee na du ma boole kenn ak kenn muy fay man yàlla maay fay mais amee yàlla nee na koor man yàlla maa fayal sama bop assawmu lii wa ana ajizi bihi yàlla nee na koor sama yëf la doo woor ni koor méttee fanweeri fan nga dajeg yàlla yàlla neena may jël say jëf di jox diw nan ko joxal ma diw di jël diw nan ko joxal ma diw yàlla neena pour ma begg lola il faut nga gëm ni man yàlla ma lay fay assawmu li wa ana ajizi bihi yàlla neena ma lay fay wax naa sànq ma ni koor gi li ñu ci yàlla dig te mooy li sayduna muhammad wax ne man saama ramadaana imaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbik loolu rek jar na woor mooy képp koo xam ne woor nga ni la yàlla santee koor gi yàlla nee na duma ca duma la ca toftalal dara lu dul nga dékki ëllëg jàkkaarloog man ma ni la baal naa la loo looma masa tooñ allahu akbar man saama ramadaana imaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqaddama min zanbik seyduna muhammad nee na képp koo xam ne woor nga ni la yàlla santee koor gi nee na bu ëllëgee doo ca am lu dul dajeeg yàlla mu ne la baal naa la loo ma masa tooñ koor gu yàlla nangu mooy def ko ni la ko yàlla sante lu ñu la tere ci bëccëgu weeru koor nga bàyyi ko woor ba pare di jëw ana koor gi woor ba pare di jëw ana gi bu fekkee koor gi mënulaa tere def benn ñaaw téef c'est pas la ngay woor loolu la yonent bi wax su fekkee koor gi mënulaa tere dara lu dul nekk ak naan yow daal sa koor gi amoo ci lu dul ndékkiw ma añu ma lii daal laa am ci koor gi déedéet moom daal boo wooree war ngaa fexe ba jikkowoo jikkoy Seyduna Muhammad te mooy boo wooree doo jëw yenn saa yi nga gis ku bëgg a jëw naan bàyyil ba ndogu sunu ndogoo ba pare nga ñëw ñu kaakaa bi am na ñu koy wax am na ñoo xam ni dañu naan bu nu ndogoo ba pare ñëwal ñu kaakaa bi ma ni bàyyil xel ni li ngay wax après ndogu ba tey yaa ci koor gi ndax waxuñu la zuuru koor weeru koor lañ la wax mooy weer yëpp boo daan jëw posel boo daan jaxase posel